ñëwee ci irréprochable bi nga wax ko ni yow da nga jàpp ne sa leader actuellement il est irréprochable. non xam nga nit bu parfait amut. parce que li tax ñu wax ko gis nañ ne ku ci mel ni faatu Thiam di député à l' assemblée nationale nee na carrément euh, fonctionnaire bu riche ni Ousmane Sonko mos ko gis mu jàpp ne xëy na ay terroristes ñoo làkk ci ginnaawam loolu ban tontu nga ci indi. c' franchement soo ma jéggaloon rek xeetu doomu aadama yooyu du wax si ñoom. Ah, lu non ñu njariñ ban njariñ lañ amal réew mi. mais Ousmane ko tamit moom day def ay sorties jëmale ko ci Macky Sall peut-être bu ko mën defee aussi war ngeen mën a teggi tuuma. non xam nga euh, Ousmane ko leer na leen ne bés bu waxoon loo xam ne du dëgg ci président Macky Sall du fanaan këram. ngeen xam ngeen ko. ndax di nga jàpp ne li Fatou Thiam wax ñu du dëgg. non bàyyi ma kooku gis nga kooku démb dama liir ci commentaire Facebook ma gis ay militants wu APR. naan kooku ak jëkkëram dañu war a wàcc ñoom ci boppam soxla wuñ leen waxuma laa nag bi leen ma perte le temps ci kooku noonu. mais war ngeen cee wax. kooku xamul Ousmane mosul gis Ousmane lan mooy richesse Ousmane donc yooyu jarul jarul jarul sax perte temps parce que nit bii wut buzz parce que ñoom dañoo xam nag defuñu de dañu xam comment ça marche ci dans le maquis mooy gën la rëy làmmiñ gën la ñaaw làmmiñ gën a la arrogante gën a fës ñu woo jox la mbaxus moo tax ku ci nekk xale fu nekk euh, di wax euh, li ñu naan <laughs> ku ku ku ne bëri rek jóg wax lu ko neex et cetera ñun dañu am objectif bu leer franchement. mais mais yow yow. yaa yaa ngi toog ki gën a ndaw ci parti bi du tontu Fatou Thiam. Ousmane dégg na wax ji du ko tontu. dégg Ousmane dafa am jot dégg ñooñu.